Monsieur le Président, Messieurs les membres du bureau, honorables députés, je voudrais remercier les honorables députés pour euh, la pertinence de leurs questions. Ils ont pris le temps de passer en revue beaucoup de sujets importants pour les consommateurs sénégalais, pour les citoyens sénégalais. Nous ils sont passés sur des questions de sécurité du consommateur, des problèmes d'approvisionnement des marchés, des problèmes relatifs aussi à la stabilité des prix, mais aussi l'appui aux petites et moyennes entreprises, euh, en passant aussi par la promotion et la valorisation des produits locaux. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord rappeler les missions confiées au ministère du Commerce, de la Consommation et des PME. C'est d'abord l'approvisionnement des marchés. Souvent, on parle de prix, c'est vrai, mais nous oublions que quand il inflation, quand le premier réflexe, c'est de faire en sorte que nos marchés soient approvisionnés. Je vous rappelle qu'ici, en 2022, lors de mon passage en séance plénière, je vous avais dit qu'il y des pays développés, où dans les commerces, il y un rationnement sur l'approvisionnement des ménages. Lorsque vous achetez on vous demande de ne pas dépasser deux bouteilles d'huile. Lorsque vous achetez du riz, on vous demande de ne pas dépasser 5 kilos pour un ménage. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et durant toute cette crise depuis l'avènement de la Covid, la guerre en Ukraine et cette phase d'inflation très forte dans le monde, Dieu merci, nous n'avons pas connu ces difficultés au Sénégal parce que, comme l'a dit tout à l'heure le président Abdoumbo, le gouvernement du président Macky Sall a été prévenant Nous travaillons nuit et jour pour ne pas avoir de rupture de stock au Sénégal. L'autre mission du ministère en charge du commerce, de la consommation et des PME, c'est la sécurité des consommateurs. L'honorable député Guy Marius Sagna l'a indiqué tout à l'heure en parlant de serviettes hygiéniques. Je découvre que c'est un grand spécialiste des serviettes hygiéniques. Mais la réalité, c'est que sur des produits de cette nature, sur des produits de cette nature, sur des produits de cette nature sur des de cette comme sur les produits alimentaires ou d'autres produits par exemple les les fiches qu'on utilise les câbles électriques il y a toujours un contrôle qui est opéré et je reviendrai sur le sujet tout à l'heure l'autre point qui intéresse le plus les honorables députés et les citoyens c'est la question de la stabilisation des prix souvent dans le débat l'honorable député Aïb Dafel a dit Souvent, on veut qu'on compare nos prix à l'extérieur parce qu'on estime que Dakar est plus cher que les autres villes. Mais quand Dakar est moins cher, quand le prix du riz est moins cher à Dakar que dans les capitales voisines, on ne veut pas qu'on fasse cet effort de comparaison. Eh bien, honorable député, nous de comparaison. Comparaison n'est pas raison, mais la comparaison permet de mieux comprendre les phénomènes économiques. Et le dernier point, c'est l'appui aux PME. l'appui aux PME, les petites et en faisant le calcul tout à l'heure, vous l'avez noté, entre l'appui aux PME avec les structures les questions relatives à la promotion des produits locaux, sur les 24 milliards que vous voterez aujourd'hui pour le ministère du Commerce, de la Consommation des PME, sachez que 11 milliards vont à l'appui aux PME. Donc la question de l'appui aux PME n'est pas une question vaine, dans, au ministère du Commerce et dans le projet de budget relatif euh, au ministère du Commerce, de la Consommation et des PME. Beaucoup d'interpellations, nous avons reçu beaucoup d'interpellations. Je voudrais commencer d'abord par euh, les questions de consommation. Sur les prix, vous l'avez noté, depuis 2020, on assiste à une inflation mondiale. Une inflation mondiale. Souvent même des pays de la sous-région nous demandent comment nous faisons pour maintenir les prix Je vous donne exemple. Le prix du sucre a augmenté de 40% dans le monde. 40% dans le monde. Au Sénégal, il n'a augmenté que de 13%. Le prix de l'huile, il y a quelques années, l'année dernière, quand j'étais ici, devant le bidon d'huile de 20 litres, l'huile de palme la plus consommée au Sénégal, valait 40 dollars au niveau mondial. Aujourd'hui, il est de 22 Et malgré la hausse qui à l'époque, il y avait beaucoup d'efforts faits par le ministère du Commerce, notamment une subvention de 1,5 milliard qui a permis de faire baisser et de maintenir le prix de l'huile. Il y a aussi les questions relatives au sucre. On a parlé tout à l'heure du sucre, le fer à béton. le fer à béton le moins cher. Le ciment, je rassure l'honorable député euh, Mamdiara Femme, le ciment, nous avons le ciment le moins cher de l'Afrique de l'Ouest. Lorsqu'on achète à 73 000 ou à 74 000 la tonne de ciment à à 120 000 francs à à 90 000 francs, excusez-moi, à Abidjan. Il y a des capitales en Afrique de l'Ouest où le prix du ciment est à 100 000 francs, 110 000 francs, 120 000 francs. Nous, vont, nous le même le Sénégal est un peu plus en Afrique de l'Ouest, de palme, parce que la Côte d'Ivoire en produit, le en produit, mais nous nous un prix stabilisé malgré qu'il soit un peu de 75 francs au niveau euh, au niveau de notre pays nous pouvons aussi évoquer d'autres euh, d'autres sujets comme comme le riz on en parle aujourd'hui le principal exportateur de riz l'Inde a restreint ses exportations a même arrêté carrément ses exportations nous y travaillons quotidiennement pour continuer euh, l'approvisionnement de notre marché en ce moment nous avons du stock, mais nous avons aussi des stocks de substitution pour qu'en 2024, le consommateur sénégalais puisse trouver euh, ses spéculations dans les boutiques. L'honorable euh, Guy Marius Sagna m'a posé une question importante. Comment garantir aux Sénégalais le prix, un prix de l'oignon assez bas Il nous faut souvent euh, expliquer des phénomènes économiques de cette nature. soble dañ koy béy Sénégal dëgg la Hollande moo ñu gën a tuuti ci superficie mais li muy produire ci oignon da koy exporter lu bëri parce que condition climatique yi moo leen ko may ñun ñu ngi produire oignon bu bëri ndaxte tey boo jëlee dëkk bu mel ni Maroc presque 36 millions d'habitants 400 000 tonnes la ñuy def dëkk bu mel ni Sénégal 18 millions d'habitants selon euh, recensement bu mujj bi ñu ngi bay tamit 400 000 tonnes mais différence bi mooy li nga xam ne mooy magasin de stockage yi moo tax ak ministre dañuy liggéey at mu jot pour xool naka la ñuy defee magasin de stockage yi ñu ngi ciy tabax na am dafa yéex ndaxte bu ñu nekkee ci jamonoy inflation ak jamonoy crise li nga xam ne mooy priorité gouvernement Sénégal mooy fexe njaboot yi borom kër yi dund bi di yomb ci ñoom loolu moo tax cent milliards yi ngeen doon tudd lu tax ñu jëlee ko si c'est parce que njëg yi dafa wàññeeku au niveau international farine dañ ci daan def 60 milliards daaw année bi niveau yi bi mu toll soxlatul ñu ciy def 60 milliards dëwlin njëg bi wàcc na ba soxlaatul subvention ceeb lañu nekk di étudier te loolu defe naa ministère de finances prévoir na réserve de gestion boo xam ne bu ko jaree ñu génnee ko ngir mën a toppatoo njëg yooyu mais il faut ñu bàyyi xel dara ni état di fonctionner ci priorité la ñuy fonctionner bu ñu amee programme boo xam ne day defar marché yi Ndiallo li wax na ko léegi honorable bàcc Bàccali naa la tontu ci Castor ndaxte bi ma nekkee ministre de l'urbanisme dem naa fa atte naa fa coow yu bëri mais dinañ leen wax marché yi naka lay fonctionner ndaxte bëri na marché yoo xam ne avancé nañ ci tey mais bu ñu nekkee jamonoy crise budget d'investissement wu état bi lu bëri da ciy migré doon budget de fonctionnement gis ngeen ko cent milliards yi nga xamante ne mënoon na defar marché mënoon na defar tali mënoon na defar hôpital mënoon na defar centre de stockage moom mooy mujj dem nekk budget de subvention bi nga xam ne mooy tax état du Sénégal du mënati def la mu daan def mais programme yooyu dinañ ko continuer ci fu mel ni Mbàkke ak marché ngiraan leen di daan ci dellu si léegi donc soble bi ñu ngi koy bay ni ñu Hollande di jaayee soble noonu nañ leen di jaaye soble ndaxte dina am jamono joo xam ne suñu prix moo gën a favorable seen bos donc mois de janvier bu fekkee ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, defar soble di ko bay fii Sénégal waa Ngomeen am na ñu dëkk Podor am na ñoo xam ne ñu ngi fii ci Noto bu seen soble ñoree saaku bi six mille cinq cent francs lay jar maanaam junni ak ñetti téeméer mais bu soble bi jeexee ñu dem ba weeru juin ñu dugg mois de juillet dugg mois d'août soble Sénégal day jeex te mënuñu ko denc bu ñu ko mënul denc année bi man maa jël responsabilité autoriser producteurs yi ñu exporté ndaxte bu ñu ko fi bàyyul day yàq day yàqu boo leen fàttalikoo daaw ñaari débat la ñu amoon soble bu yàqu ak soble bu manqué ginnaaw bi soble yëpp jeexee année bi soble bu manqué la am mais soble bu yàqu déggu leen ko fenn ndaxte permettre nañ ñi nga xam ne ñooy producteurs yi ñu jaay bitim réew am ay revenu yu baax defe naa ne ñaari feebar boo ci fajee benn tane na tuuti. leneen li nga xamante ne moo am donc mois de janvier ba mois de juin mooy li may wax la saisonalité de l' inflation mooy yëg njëg yi yokk ci benn jamono la bu ñu jógee mois de novembre bi di ngeen gis njëg yi ni muy tàmbalee wàcc ndaxte nawet day yéegal ay njëg wax naa leen ko keroog ci commission yi nawet borom gaal yi duñ dem géej pêche artisanale nawet. ñi nga xam ne ñoom ñooy def pêche industrielle borom gaal yu mag yi ñoom dañu am repos biologique donc loolu rek day yokk njëgu jën nawet borom nag yi jaayetuñ nag yu bëri président éleveur xam na li ma ci wax ndaxte galo xam nga ne bu ñax amee tuuti sama mbokk séeréer yi pour bañ la tooñ du ñu jaayee ci seen i nag njëgu ndawal day gën a yokku waaye leneen dafa amat mooy produit horticole yi soble ak pomme dootuñu ko produit ndaxte nawet àndul ak mbayu dër sof ñi nga xam ne yàlla dimbali na leen ñu am ay serre leneen di nag mooy électricité tudd nañ ko fi léegi dinaa ci dellu si léegi léegi ndaxte électricité tamit day yokk ndaxte nawet jamono ju tàng la joo xam ne day fekk consommation yi gën a yokk xam nga économie ku nekk mën na ko interpréter nu la neex waaye économie pour mu wax la naka sudul noonu économie ngay analyser statistique loolu lu jafe la Sénélec mois de janvier ñun Sénégal yëpp suñu consommation en électricité 770 mégawatts la 770 mégawatts parce que dafa sedd parce que soxla wuñu taal ventilateur yu bëri booy togg sax mën na am yenn tàngal yeeg yu demee noonu doo ko def mais bu mois de juillet duggee ba mois d' octobre mooy période bi nga xam ne pic bi day ñëw on passe de 770 à 1050 mégawatts maanaam population Sénégal yëpp suñu consommation dina yokk entre 30 ak 40 pour cent année bii pic pic bi mi ngi dugg mois d' octobre mooy euh, facture yi ngeen jot noonu mu egg peut-être ba mille cent mégawatts mais naka lay feeñee ci facture ki nga xam ne mooy woy jëfandiku bi da nga yor lu mel ni woyofal li nga xam ne moom mooy dix premier cent premier wala cent cinquante premier mégawatts yi mooy sa facture dépassé wul quinze mille francs ce prix au kilowatt heure bu fekkee basse tension nga nekk quatre vingt onze francs la quatre vingt onze francs le kilowatt heure muy yombalal boo xam ne état du Sénégal dala ko def defal doo fay li nga xam ne moom la ñuy wax taxe communal doo fay TVA ba pare sa njëgu kilowatt heure mooy bi gën a tuuti mais bu fekkee da nga yokk maanaam néeg ak salle bi nga yoroon ñaari làmp benn ventilateur weesu nga ko da ngay dugg deuxième tranche deuxième tranche prix bi cent trente six francs la ndaxte àdduna noonu la demee ki yokk ay appareil am day fay lu gën a cher donc boo duggee deuxième tranche ce prix egg ba cent trente six boo demee nag troisième tranche looloo dal ñu bëri at mi maanaam pic bi dafa fexe ñu bëri yéeg troisième tranche ñu dem ba cent quarante wala cent soixante wala yu demee noonu ba nga xam ne moo tax prix wu électricité yi ñu sentir ko donc dañ combiner ñaari yëf yokk quantité consommée bi yokk prix unitaire donc loolu moo leen di wadde boo leen xoolee ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax les consommateurs domestiques de la Sénélec ils sont environ un million neuf cent mille sénégalais six cent mille ñoom ñoo nekk woyofal jàll troisième tranche moo tax facture yi mais un million trois cent yi nga xam ne ñoom seen facture weesuwul vingt cinq mille francs li leen état digoon loolu la def mooy maintenir prix bi ñu TVA te seen prix mi ngi oscillé entre quatre vingt onze francs ak cent vingt six francs donc loolu yërmande la boo xam ne président Macky Sall moo ko def te defe naa ne fan yi dinaa mesure yu bees yoo xam ne dina gën a woyofal njëgu électricité bi monsieur le ministre Antoine Félix Diome bu fi ñëwee dina leen ko leeral bu ñu jàllee ci question yooyu mën nañu wax tamit ci PME yi wax ngeen ko sànq wax naa leen état du Sénégal ni muy jàppalee PME yi am na loi d'orientation boo xam ne def nañ ko en deux mille vingt am na décret boo xam ne dafa jox statut entrepreneur yi te loolu yëpp bu ñu ko toppee di ngeen gis ne liggéey bi ñuy def ci mois du consommé local. fexe ba sénégalais yi di ko taxawee wax ngeen ko sànq autorisation Fra dinaa ci dellu si jàppale leen ba nga xam ne ku bëgg a entreprendre ndaxte ñu bëri damay dégg ñu naan waaw euh, DER dafa yéex financé wul alors que ci ñett ñeenti at yu mujj yi cent vingt deux milliards def nañ ko bu ma jëlee bureau de mise à niveau nga xam ne entreprise bu taxaw di liggéey ni nga war a liggéeyee boo ñëwee def sa programme d'investissement ñu jàppale la conseiller la orienté la lu toll ci 2004 ba léegi lu ëpp 136 milliards def nañ ko ci état jël 35 milliards feelu leen ngir entrepreneur yi gën a mën a taxaw tey jii boo demoon Grand Théâtre di nga fa fekk sama jigéen faatu Diagne muy def 96 heures de l' entrepreneuriat dëgg la guichet yi il faut mu bëri parce que type entrepreneuriat bi jigéen ñi di def ak xale yu góor yi bi ñuy def bokkul entrepreneuriat bi structuré am ay documents financier di mën a dem ci banque yi di mën a dem ci pm e yi bokkul moo tax ñu segmenté ko entrepreneuriat des jeunes entrepreneuriat des femmes ak li nga xamante ne moom mooy activité yi nga xam ne ñu ngi koy def donc entrepreneurs yi du xaalis kese lañ soxla entrepreneurs yi dañu soxla ñu accompagner leen techniquement ñu fexe ba mise à niveau bi fexe ñu mën a éligible bu ko defee banques yi di leen mën a lebal économie Sénégal gën a dox li ñu soxla di ko defar fii honorable député Saliou Dieng wax na ci ferrailleurs yi maa ngi ko ciy gërëm di ko ci sant def na ci liggéey bu am solo parce que ñàkkul interpellé nañ ko en tant que mu contacté ma janoog man ne ma lan moo xew ci diggante euh, ferrailleurs yi ak ministère du commerce ma ne ko dinaa la wax li xew waaye dama bëgg nga ñëw fekkee donc ma woo ko ñu def benn comité liggéey ñu def benn convention entre les ferrailleurs ak le ministère du commerce ak industrie yi li xew nag li xew nag parce que defe naa ne dañu am devoir de redevabilité te euh, même bu ñu waxee ay pouvoir yu séparé lañ am na loo xam ne mën nañ ci collaborer li xew lenn la mooy dañu am secteur industriel boo xam ne mi ngi jóg saa su ne yàgg nañ dégg ay député yu naan le Sénégal ne s'est pas industrialisé defuñu ci effort nangam te pourtant UEMOA li document yi wax nee nañ dynamique d' industrialisation Sénégal moo ko gën a am UEMOA ñun nag ci dynamique boobu lañ nekk looloo tax bu ñu amee depuis 2014 président Macky Sall indi courant bu doy ci Sénégal am ay industrie yoo xam ne dañu ñëw installé wu Sénégal di defar fer à béton am na ci ñoo xam ne dañuy dajale aluminium di ko def ay lingots di ko yónnee bitim réew ay usines ñu ci defaraat oto mën naa ci tudd usine bu mel ni Toyota wala yeneen dëkk am ñoo xam ne dañu investir fer bi ñuy dajale ñu war ko liggéey fii ci suñu industrie yi ba mu nekk ay baar wala ay feer ñu dóor ko yóbbu bitim réew ak ñoo xam ne dañ koy jël defaraat ci fer à di ko jaayat fii wala bitim réew ak ñoo xam ne nag ñoom dañ bëgg jël fer bi dugal ko ci ay conteneurs yóbbu ko bitim réew ñu toog dajale leen leen ñun. suñu priorité économie fi ko président Macky Sall teg mooy ñu industrialiser wu kon industrie ferraille bi ñu koy collecté buñ ko amee dañ ko war a yóbbu ci ñi nga xam ne ñoom ñooy industrie ñu waxtaan ak ñoom ba ñu def prix bu baax boo xam ne ñoom du ñu ñàkk ndaxte prix à l'international deux cent dix mille prix local cent quatre vingt dix mille vingt mille francs la tonne boobu defe naa ne déggoo am na ci mais jamono jii ñuy wax nit dina dajale ferraille di ko jaay bitim réew te doo ko mën a jaay ndaxte prix bi au niveau mondial cent cinquante mille donc industrie locale yi ñooy jàppale ferrailleurs yi fi mu ne nii ndaxte prix wu Sénégal moom moo gën a avantage que li xew bitim réew souvent sax dañuy wax ne naka la ñuy def pour créer benn mécanisme bu fekkee prix à l'international moo gën a baax euh, ferrailleurs yi baal industrie locale yi 20 pour cent bu fekkee prix local moo gën a baax euh, prix international ñoom it ñu supporter 20 20 pour cent wala 20 000 francs pour ñu la donc ay mécanismes yu ñuy trouver dëgg la nag dëkk. dëkkandoo mënul ñàkk jafe-jafe yenn saa yi ci lieu d'emportement yi mu am problème yenn saa yi ci ni ñuy defaree li nga xam ne mooy processus bi validé naka la export bi di amee loolu tamit day jafe mais li nga xam ne moo am ba am mooy détermination état du Sénégal pour jàppale industrie yi industrie yi tamit du ñu leen seetaan mukk ñuy yéeg ci kaw ferrailleurs yi di leen yàqal léegi nag ferrailleurs yi politique ñi nga xam ne dañ ne ci rajo beeg télé bi di xuuxalaate man mënuñu maa lu leer laa leen di wax bu ñu bëggee table bi ñu ñëw toog waxtaan bu ñu bëggee ñu am solution ferraille bi di dem ci industrie sénégalaise yi d'abord balaa ñuy dem bitim réew ñun loolu lañ bëgg wax ngeen ko fii nañu bàyyi diw bi di ko yóbbu nañ bàyyi gerte gi di ko yóbbu loolu lañ bëgg ñu transformer ko fii valeur ajoutée am ci parce que industrie boo gis 1200 ouvriers moo fa nekk lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti donc jàpp naa ne waxtaan war na mën a am ba nga xam ne doomu Sénégal bi dajale ferraille ak doomu sénégalais bi nga xamante ne moom da koy transformer ci biir usine jafe-jafe du ci am leneen lii nga xam ne tamit laaj nañ ko fi bokk na ci wàllu mburu mi honorable député wax nga ne mburu mi jaay bi ñu koy jaay ci bitik yi dëgg la mais loi dafa am lu mu wax dañu wax ne mburu dañ ko war a jaay ci bërëb bu sell boo xam ne dafa loolu rek a ko tax a jóg jaay mburu rek boobu ba léegi nag defe naa ne loi bi am na lu ñu ci doon appliqué mais dafa fekk jamonoy Covid am li nga xam ne mooy yoon mooy diggante kiy defar mburu di ko yóbbu jox ko distributeur bi ak boutiquier bi koy jaay damaa bëgg nga xam ne boutiquier bi moom boutique am juróom fukki produit mi ngi fa bu ci ne mi ngi ciy mos dara waaye jaaykatu mburu bi moom mburu rek la am diggante moom ak distributeur bi li nga xam ne commission bi ñu ko ciy laaj day tax souvent muy bëgg a yokk mburu bi moo tax lu ñu def dafa fekk ñu seetantal ko ñi nga xam ne dañ bëgg ubbi boutique wala ubbi cantine di jaay mburu loi am na lu mu ci wax ñooñu nag mën nañ ko def consomateur bi def cinquante mètres pour jëndi mburu wala jënd ko ci bopp koñ bi loolu du problème mais li am solo mooy boulanger bi nga xam ne da nga def sa investissement cinquante millions di jaay mburu am koo xam ne distributeur la ñëw mburu boo jaayee fanweer ak juróom maanaam cent soixante quinze mu bugg cee jël juróomi dërëm wala bugg cee jël fanweer wala mu bugg cee jël juróom benn dërëm wala juróom-ñaari dërëm ba ëppale la ci yow mi di defar mburu bi loolu état waru ko seetaan te yow xam naa ne nitu dëgg nga donte xam naa ne mbaxana mi rafet na lool waaye xam nga li ma la wax xëbër xëbër gi bëri na waa rond point JVC donc xam nga bu baax li la wax jaaykatu mburu yi dañ leen war a sàmm mais boulanger yi dañ leen war a sàmm bu ko defee kenn du ci ñàkk ñu ndey ji Cheikh lañ dañ war a dajale nit ñi ku ci ne ñu xam jafe-jafe bi lan la honorable député Aïda Sougou ak euh, soxna Ndialou Bàcci li laaj nañ ma ci marché yi euh, marché yi nag état du Sénégal mi ngi ciy def effort bu am solo effort bi mi ngi ci rénovation yi monsieur le ministre euh, Moustapha Ba dina ci wax léegi effort budgétaire bi ñu ciy def at mu jot ñu jël deux milliards di ko def ci marché yi ndaxte marché yi li ci yàqu dafa bëri marché yi li ci yàqu dafa bëri mais programme la tey mën naa leen leeral ay marché yoo xam ne livré nañ ko te ci programme bi la bokk tey boo demee marché Tilène bu Ziguinchor avancé na niveau d' avancement boo xam ne li ci des bëreetul honorable Malick Fall wax na ci marché Diourbel honorable euh, defe naa marché bu Tambacounda avancé na lool tamit ak yeneen marché yoo xam ne mën nañ leen tudd donc marché sous-régional de Tamba Tambacounda quatre-vingt-quinze pour cent marché Doumbé Diop joxe nañ ko marché Medina bàyyi pare na marché sous-régional de Tambacounda ak yeneen ak yeneen yoo xam ne peut-être xaju fi marché syndicat mi ngi avancé mais liggéey bi dafa am problème ndax diggante marchand yi délégué marché bi ak promogem il faut ñu déggoo ci euh, quelques difficultés ci déguerpissement bi ak yooyu donc loolu yëpp laa bëggoon wax rek xam naa ne temps bi mayewu ko dugg naa ci ay détails yu bëri mais ma bëgg wax rek benn wax ndaxte dégg naa honorable député Guy Marius Sagna di wax li nga xamante ne moom mooy euh, tudd li nga xam ne moom mooy émigration irrégulière te yenn saay nag yuuxu ci kaw taxul nga am dëgg Union européenne li mu wax ci ay rapport am mooy ñay wàcc Italie ak Espagne di dugg ci gaal yi nee nañ Sénégal boo doon calculer xayma ci ñi nga xam ne classement bi la Sénégal la mu fa andi mën nañ ne mooy dix-huitième te Sénégal boo déggee cool dafa mel ni ñëpp Sénégal lañ jóge ña ñëw te doon ay sénégalais matuñu deux pour cent ma bëgg ñu xam loolu ñaareel ba il faut ñu xam profilu migrants yi dégg ngeen ci journaux yi ñu def ci ay reportage ñoo xam ne dañuy émigré di fay six millions cinq cent xasuma leen peut-être am na lu tax mais dama bëgg ñu xam ne migration fii lañ ko fekk bëgguma tudd ay réew mais boo demoon France ñiy migré di dem Suisse noonu la bëree boo demee Espagne ak Portugal ñiy migré di dem France boo demee Maroc ñii migré di dem Espagne ak Portugal donc nit ñi dañ jàpp ne peut-être am na lu ñu uti ci dëkk yooyu am na reporter bu mag a mag bu Sénégal boo xam ne def na fi benn reportage di nettali ne bi muy voyagé ci biir avion bi dafa daje koo xam ne billet classe affaire la jënd ne ko man damay dem immigré ji mu ne ko looy defi foofu mu ne ko damaa yàgg bëgg a dem foofu rek mu ne ko lan ngay liggéey mu ne ko quincaillerie bi ma yor ci gox bi may dëkk moo gën a dox la ma fa am ay dizaine de million la yoo xamante ne moom laay gagné par at mu ne ko waaw yow sa quincaillerie bi nga demee noo ko def mu ne ko sama nijaay bu nekk fanweeri at États-Unis te bi muy ñëw indiwul dara moom laa ko dénk donc loolu moo leen di wan migration bi nañ ko xalaat de façon sociologique de façon économique te ñu xam ne bëri na tamit ci migrants yi ñoo xam ne ñoo xam ne ñu ngi utiliser tamit ay fonds ak ay investissement waxuma loolu kese la waxuma tamit ne waxuma tamit ne tamit difficulté économique amu ci mais li ñu war a xam mooy migration ni mu demee léegi lu ñu war a seetantal la ndaxte ce ne sont pas seulement des causes économiques mais war nañ xool ay causes sociologiques maa leen di gërëm di leen sant. di jox monsieur le ministre des finances. monsieur